ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. jox leen ma xel yi te ngeen déglu maag noppi garme yi di koy door ak nga xam ne dugg na naru ba ma doon fowe doomi buur ba fa tàbbal ko ca teen ba l'observateur di yéenekaay yi groupe Futurs Médias gi di ñu xamal ne Adama Gaye ab yoo xam ne bindoon na ko posé ko ci page Facebook am yéenekaay di ñu xamal ne loolee daal moo ko yóbbee loolu ndax dafa réew mi ne ko coppet daal di ko yóbbu yéenekaay bi di ñu xamal ne mbiram yooyu daal mi ngay gën di yaatu ndax kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci njiitu réew mi article ma ngi koy xaar yéenekaay bi di libération libéré xibaar di ñu xamal ne kàddoom yooyu daal ñaaw la lool la tribune yéen kay di ñu xamal ne xawma ñaaw na wala déet waaye la ko cay xaar daal nota sedd ci moom vox populi lii mel ne ku dégg kàddu yi la tribune yooyu naan ko daal Adama Gaye daal kaso la jëm waaw rëbës kay bu ñu sukkandikoo ci ay awra mu ñuy xamal ne kàddoom yooyu daal donte na di ñu xamal ne Mimi Touré na liggéey ba waaw ma nga ca journal bi di la tribune di ñu xamal ne Mimi Touré doon na liggéey bi liggéey bu yees bi tey ji daal lañ ko tàmbali acte trois ak jafe-jafe yi nga gisal nañ ko ko ñu jiite maire yi ñoo ko yëkkat ci CRD bu ñu doon amal ci teewaayu ministre Omar Gueye ca jamono jooju ñu doon adoo ñeneen ñuy jànkonteel ak i jafe-jafe ca itoog dikkat gi nga xam si ne Baba Diaw moo ko jiitee le quotidien di ñu xamal ne liggéeykat yooyu mer ba furu la ñu def ndax juróom benn weer yoo xam ne jotuñu ko seen wayoor ci lañ wootee ab conférence de presse jébaane Baba Diaw jamono jooju l'observateur di ñu xamal ne Khalifa Ababacar Sall jamono ji ab recours la ñu Socé maa nga ca làmb ja Dakar Times di ñu xamal ne ñu ci nekk roi des arènes bari na waaye bu ñu demee ci CNC kenn rek la ñu nangu mu doon fa roi des arènes di Yacine Ndiaye di Manga 2 gars yi Modou Lo nag ci Les Échos di ñu xamal ne Modou mën naa bëri ne ba mu des Balla gay 2 nee na Balla Gaye nee na Balla doy na sëkk sëkk maa ngi daw ba suba jàmm